Thank you. ca voilà salaamaaleykum mbokki téléspectateur Côte TV nuyu nañ leen fu waay nekk ba fu waay toll dinu safoo comme ça su nekk ak waxtu bu ne nu nu koy defee daan doole lañu waa tey spécial daan doole daal di ñëw fii nga xam ne moo di quai de pêche ci diwaanu Mbour ndax ku ne Mbour ne géej waaye ku ne Mbour na jën ba tax na tey suñu émission daan doole fii lañ koy daal di tijjee daal di xool waa marché bi naka la ñuy dundee ci wàllum jën daal di xool waa marché bi naka la ñuy dundee ci wàllum napp gi ndax nee naa la balaa ngaa jaay jën da ngay napp te boo nappee da jaay kon damay ànd ak sama caméraman ñu daal di dugg si biir xool gaay ka la ñuy dundee seen jafe-jafe ci biir marché bi xool seen contentement ci biir marché bi ndax jën am na wala jën yomb na wala jën cher na ay ca léegi-léegi man nag jafe-jafe bi may dund ci marché bi marché bi neex rek ndax boo amulee jën man damay mbàllaaw waaw ndax jën normal la du seer wala de mi ngi nii da ngay xëcc mbaal mi teer à 300 mètres ngay xëcc ci buum gi ba mbal mi teer ngay ñoddi ba mbaal mi teer nga bambal mbal mi dëgg ci jóge ci ndox mi waaw mère lu tax ngay wax man man ma ñuul kuk mère nga may jaay filing di tiitaru di at man maa koy liggéey ah. waaw nga jaajëf abada jaayul dara jaayoo dara jaayoo dara client eh, ah man da xam naa de man xam damaa toxu si fi rek dëkkoo fi man bool tapé laa jógee toxu fi jaay mu jënd seen na da yaay ah man de sama client na moom su ma ñëwee day jaay bu baax ndax dafa yàgg ah. ci marché bi waaw est neexaloo ko sama client bi nag <laughs> wa ma jam lan ngay liggey fi ci port bi. jënd jënd jënd jënd yow marieur nga. waaw marieur la waaw. kon yeen yeena gëna neex la de. déedéet ñun kay neex la wëñ dañay dañay takalé ndank ndank rek dañay takalé ndank ndank rek. yeen da ngeen di jënd jënd yi di ko yóbbu ci usine yi. Dakar lañ koy yobbu Dakar waaw usine Dakar. wa ci pelé lañ koy yobbu marché marché lañ koy yobbu marché wa marché lañ koy jaayé do wa yéen naka ngeen di dundé fii yeen marié yi. ah ñi ngi lé lé lé léeg ñi am ak gaay yi de waaye lé léeg itam ñi kii rek xam nga rek dangay ngay ree ba tas daal léeg-léeg moom jëndam jen mi dana metti trop mais dana toll jamono yoo xam ne nii nag moom wax dëgg yàlla moom du métti moom lan ngay wax mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo leen seetaan ñi nga xam ne dañuy dégg mbuur foog ne mbuur fii la jën yi ëppee ndax bu ñu mbuur ne mbuur géej foog ne ñun di dëkk mbuur jafe-jafe jën mënuñu koo am ah mbuur de moom ñu ngi nii rek jafe-jafe jën ah léeg-léeg jën am léeg-léeg jën ñàkk moom uh-huh. jën yi moom léeg mu bëri moom léeg moom jën moom dana ñàkk moom wax dëgg waaw yaboy bi de moom moo ci ëpp doole moom yaboy moom mooy ëpp doole moom bëri waaye mbuur jën moom jën wu lewet moom dana fee am waaye bëriwut moom. waaw bëriwut jën bu ñun moom jën bii la ñuy liggéey moom jën bii ñun kong bi koŋ bi kong bii la liggéey ñun moom waaw. kong lan nga ci mën a liggéey. suppu kànja dañ koy fumer yi kong dañ koy fumer te yóbbu Dakar ñu fumer ko waaw pël yi lañ koy yóoti mooy maanaam pël jaay kong Dakar ñoom lañ koy yóoti briquette waaw moom la ñuy def géej gi moom la ñuy lakk def ko comme fumier waaw moom lañuy ñuy jaay man hmm, xool ma rek ah. man boo xool xam la ma doon xool ma rek. <laughs> kese kese kese parce que da ngay jënd sa jën fii nga ñëw glacé maire yi ñëw glacé gaal fanaani ñomi tam dem fanani ñoo indi jeen bi li nga jënd do ko mën a jaay. ben sir ñun dañoo tak ñoo ngi ni sol ay yéré gëna ba ñu jógee ci ñi nga xamné ñoo di jaay jeen jógee ci ñi nga xamné ñoo di mareyeur yi ñu ngi fi ci ñi nga xamné ne ma sha allah bon ñoo bu ñu duggul jën du am. xam ngeen ni boo leen gisee ni ma tollu du yàpp jeen la ndax ñi buñ dugg ci geej gi nee la kenn du ceebu jeen ñi buñ dugg ci geej gi kenn du ceebu jaga way ñi buñ dugg ci geej gi kenn du supu kanja ñom ñoy mool ñom ñoy ñi nga xamné ñom ñoy dugg ci geej gi di nap jën ñi nga xam ne ñoom ñooy dugg ci géej gi di dimbali askan bi di dimbali ñi nga xam ne tubarkalla macha allah dañoo bëgg jën ñoom ñu maanaam ñoom daal ñu gën koo xam ma mbokka àll bu piir ah ba tax na dama leen di laaj sëñ bi naa def. maa ngi sant bu baax a baax. yaa si jàmm. maa ngi si jàmm kam. Ndiaye. Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye lan mool. mool maanaam damay dem géej ah. waaw. yéen bëri na dañu am ci jafe-jafe bëri na lépp mënuñ ko wax buñ ko bëggee wax sax président day mer. billaay ndax danaan ñi dañoo bëri lu ñuy kaas fekk bëri wuñ lu ñuy kaas lu ñu yitteel la. ndax senegal tey li tax xale yi dem Europe di yi di dem ay libi yëpp li ñu yàlla dénk muy géej gi lañ sàmmul mais bu ñu sàmmaloon suñu géej gi téyel ñu ko waxuñu la ñun mais suñuy sët sax bu ñëwee fekk seen teraanga ndax teraangay àdduna géej waaw te Sénégal am na teraanga googu muy géej mu ngi nii am na pétrole lañ wax ak gaz ak yeneen a yeneen si géej gi am na lu nit ñi dundee mais nañ ñu ko investiral tegal ñu si ay règlement yu impec yoo xam ne buuray def di dindi mais buur moom poosam la fi nekkal rawatina sax commission bii ñu ñu booleel ndax nag yaa ma interrogé moom. waa maa la wax. waaw am naa fitu wax lu ne nag. dinaa paas sax xaw ma kuréel gii ñu ñu booleel. Mhm. dañuy seetaan ndax ñaata mool ñoo fi dee ñaata tu teerwaankat ñooy lab si tefes gi. lool doo leen dee moom bu xasee jot. gilet de sauvetage mënu si dara kaaraange la nag dëgg la yoon la ñu koy sol ndax fagaru moo gën faju foofu moom sunu erreur la mais. après dañ koy nangou tamit xam ne defet boobu ñun ñoo ko moom xal mool yi dañuy ñemee géej gi rawatina ay xalé yu ndaw da ngay gis ay xalé yi nga xam heure bi da leen waron fekk école mais xalé yi dañuy teel def seen bop ci géej gi wa xalé yoy nak comme man mi ci la bok ndax man sam papa enseignant la won fi ci li école annexe yo ban at nga commencé di dem géej man 80 ah yow kan mooy sa waykat man Youssou Ndour wa ndax mo wëy sama mam Mau may sundur Youssou Ndour nga doxal. waaw man maa may Youssou Ndour. maa ngi papa lan lay liggéey fii yow. géej laay dem. yow mool nga. mool ci pêcheur. Ah, ñaata at nga ci def. def naa ci lu mat fanweeri at nangam. papa nan yan jafe-jafe ngeen am ci diwaanu pêche bi. Eh, bari na parce que euh, jafe-jafe ci côté biir géej ak jafe-jafe ci biti prix jën wi niñ koy jëlee c'est agressif oui. prix jën wi niñ koy jëlee c'est agressif ah, parce que du ñu wax ne jën sàngam nangam la war a jar ñoo xam ne poids boobu buñ ko indee loolu lañ koy jaayee mais dañ koy euh, dañ koy jaaye treize mille tey ñu jaaye ko six mille. mais papa parce que non non du ci lu non déglu ma. Uh-huh. bu fekkoon ne am nañu chambre froide yoo xam ne bu naree demee noonu ñu teg ko fenn ba mu ñu war koo jaay même prix mooy dox nest dégg nga ñu né Sénégal lañ nekk dëkk bo xamné da ngay jappalanté yow bo indé sa jeun bëgg ko jaayee lu cher ndax ñun ñi nga xamné amna ño xamné seen doole jottu seen ginnaw lu cher mën ta ñak ndax lu baax la lu baax ak fañ koy jëlé xolal mool mi fam koy jëlé gëmëñu gaynde lay jëlé gëmëñu gaynde lay ñu ñuxé kon buñ ko indé ñun dafa am war ñu ko wara respecté mais da nga gis mool mi dem mën ta am kawar ki demul geej di war ay lu ko neex di yor ay lu ko neex ki di étage kii mënta am mbaam lu waral loolu. to ay million ngay liggey ño fi genn par jour togal ba gal yi ter nga xol gal gonen limuy yebbi ay 400 caisse ay 300 caisse ñaata ton, ah ñaata lay jar mol mi lum ci naru c'est différent bana bana bi ay posam guux to bi muy indi wul dara mu wara a xaliss bu bari mol mi di dem ak dépasse kuko liggey est-ce que bu suux amone bana bana bi dana dépasser fi fi lay taxaw ci kaw jor walu geej bo ñewé ci kaw jor gi ngay yem jafe-jafe bobu moy ha? ñu wara réglementer pes bi wara réglementer prix wara am sécurité parce que fi amul sécurité. papa nak pes bi neex na ndax président len? jàppale na len ci naka. ah xamoko Dedet. déedéet. lan ak lan la len fi indil. la anamu. yeen lañ koy laaj ku ci jot ku ci jot man jot na ci man mi def fanweeri atay geej def na aska jot na ci yéen xanaa fii amul président. président bi président bi ñamu nekkal la nekkal mais nekkalul ñuy liggéey ñiy liggéey kenn tudd leen pourquoi. déglu rek déglu rek ma bu ministre ñëwee fële lañ koy tàntal déglu ma bu ministre ñëwee fee lañ koy tàntal ña muy ay pêcheur lañu ñooñu ay baana lañu borom mi lañu dar teruko, ko ah jigéen ñi solal ko ay niroole. ah bu ñëwee ñu ndaw rek binal ko xooy ko sa waay wàccal ko ñaari keesi coof ak benn bu yaax déglu ma dëgg maa laaj may wax am naa fu la wax man ah, ah, du yem ndax yaa ko laaj <laughs> danga laaj ma wax la bu yeboo nee naa la luy leer day leer waaw kuy nëbbu doo nëbbu man xëjuma ci nëbbu fang laay def kon nag damay wax mu leer ban heure bu ñu tëmbee suba gi ay trois heures la gaal yi teer jëm ba 6 heures ba 9 heures lépp jaayante ay ñeenti mbaal dañ koy dóor longue porte yoo xam ne ay tonnes moo la koy isee. spectateur gannaaw ba ñu jugee ci ñi nga xam ne ñoo di jaaykatu jën yi jugee ci ñi nga xam ne ñoo di mool ñu ngi fii ci diwaanu Yaranka ndax géej gi dafa am ñaari partie dafa am ñoo xam ne ñii ñooy jaay jën am ñoo xam ne ñii ñooy jaay Yaranka dañuy ñëw ci diwaan bi nga xam ne ñii ñooy jaay Yaranka at Yërëda ñu daal di leen di laaj ñoom naka la ñuy Yaranka bi at Yaranka bi ban jafe la am sëñ def. ça va maa ngi si no tuddu man eliman lah tutu. eliman eliman yow ci yaranka bi nga ne. man waaw fi la ne ak sira de bi waaw. yeen jafé jafé la yaranka am. ah yaranka bi jamono ji mom bari na jafé jafé ndax bo xolé yaranka ji wul ba paré ta jarul comme par rapport jamono ye ci ginnaaw yaranka ji bari won na en plus jaron na mais sans bi wul ta jarul yere bi dal instant bi mo fi ne tamit prix demeewul non waaw. mais yeen yaranka bi jaayoo ko mbuur yaranka bi non jaayal ñu ko mbuur mais tamit même bu ñu ko jaayewul mbuur tamit waa mbuur ñoo ko jënd di ko yóbbu waaw waa mbuur ñoo koy jënd di ko yóbbu. tax ñu ne yaranka bi moo ëpp xaalis euh, jën bi. <laughs> ah déet dañuy wax rek amaana ku nekk tamit fa nga ne ak milieu ba nga ne boo si gis bopp tamit loolu garaawul mais yaranka beeg rëdd bi wala ay jën yooyu yëpp benn la rek mm. waaw loolu yëpp benn la ngay wax mbokki téléspectateur yi lay sétane ñi nga du ne kala dañu bëgg yaranka bëgg di utiliser yaranka ban jëriñ la yaranka am déet comme budé ñun mom wax dëgg yalla comme suñu milieu la te fiñuy liggéey aussi yaranka bi amal nañu njëriñ ndax defe na bañ xamé xàmmele ko ba légui ci lañuy liggéey suñu maire yek mak ñek ñep amana ci lañuy liggéey kon yaranka ñun amal nañu am ki apport amal nañu njëriñ pour ñun wa xawma nak tamit ñeneen mais budé ñun mom amal nañu njëriñ wax fa dëgg yalla merci beaucoup waaw bu ñaata. Eh, saaku 1500. ak ñaata. ak 2000. 3000 ah, glace gi. li leen di du seey. maa wax lool. ñu jaay glace au niveau fii ci cabine yi ñu jaay ñi ñu koy glacé di ko yóbbu au niveau de les si kaw quoi. waaw moom sans glace moom port dox. sans glace port dox parce que boo xoolee ñiy liggéey fii ñëpp glace ki la ñuy xaar pour rek liggéey bu glace amul moom vraiment liggéey du am. glace gi moom lay am ñu jëlee Saly am ñu jëlee xam ko campement am ñoo xam ne Malikounda bëri na daal am ñoo xam ne Joal am ñoo xam ne dara waaw mais liggéey glace bi métti na de. non damaa dugg mais damaa xalaat fii sedd bi. non sedd amu ci moom parce que góor moom ñafe rek amul dara lu yomb. il faut mu neex nga doog am dara sinon moom bu tàngul doo am dara moom. glace bi par sac ngeen di jaay. waaw par sac la ñuy jaay ni mu la ñuy jaay fii. sac bi ci gën a prix bi ci gën a cher ban prix la. taw faay mooy 1500. 1500 amul 3000 am na ça dépend ci niveau bi rek parce que am parfois niveau bi dee élevé nga élevé ànd ak moom. ban jafe-jafe la ngeen am ci glace moom jafe-jafe amuñ benn jafe-jafe quoi vraiment parce que parfois nag. àjjana moom lépp àjjana la moom. xam nga see li mooy àjjanay séeréer ñoom li seen àjjana bu tàngoor bu la rek dañuy dem a ñëw di jaay glace ay ca daal di dem ca <laughs> amis téléspectateurs Côte TV gannaaw ba ñu jugee ci ñi nga xam ne ñoo di mareyeur yi jugee ci ñi nga xam ne ñoo di mool yi waaye jugee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy di jaaykatu jën yi fàttewuñu ñi nga xam ne ñooy di jaaykatu yaranka yi ñu ngi fi at ki nga xam ne moo di président bi. nuyu rek ñu la sant di nuyu ñu ñuy déglu di wax ne fii quai de bi c'est un lieu public comme ni nga ko waxee ñëpp fi nekk marieur mool micro mareyeur femme transformatrice. ñëpp ñu yëngatu di yëngatu ci wàllu géej ñoo fi nekk kon ñun ñoo seex port bi ay nit nag bu ñu seexee ay mbir li gën a rafet ñuy waxtaan ci biir waxtaan bi tamit kenn ku nekk génn sa xalaat ñu xool xalaat bi gën a rafet ñu def ko bu ko defee ñun ñëpp ñu nekk si jàmm kenn ku nekk tamit nga liggéey sa liggéey tranquillement loo fi am muy sa wërsëg nga dem yóbbu sa njaboot parce que tamit place su liggéeyukaay ñëpp ko bokk kon képp ku leen jiito ak ku mu doon ku ne foo nga muñ foog nga jëlaleel tamit foog nga jéggale loolu moom ala kulli alin moo am fii. bu ku nekk ñëw xëy di ut si xaalis lu ut loo yóbbu sa njaboot xam nga organiser ko dafay xaw a jafe li koy jafe ñal daf ci bokk si ne koo wax ne rendul nii pour ñu defar mu gën a baax mu jàpp ne koy nga koy xëy wërsëgam kon foog ci xel rek ak ci muñalante la ñuy waxtaan. ba kenn ku nekk def li nga war a def ñu nit li ñu dénk ñu sàmm ko niñ ko sàmmee ba mu mucc ayib mais jafe-jafe yi bëri na parce que ni ma la ko mën a waxee mooy secteur liggéeykaay yi dafa bëri. mool yi ak seen i problème mareyeur ak seen problème ñi ngay gis ñuy détaillé foofu tefes gi ak seen problème micro mareyeur ak seen problème te ku ci nekk bëgg nga fexe ba naxanteeg moom ba yéen ñëpp ngeen nekk ci jàmm ku nekk liggéey liggéeyam. mais nag ku leen ne jafe jafe-jafe amu fi dafa lay nax fii ngeen di ñëw nii rek ñun da ngeen ñu fekk ñun comité restreint de gestion bi yëpp ñu wàccoon ci tefes gi pour organiser tefes gi pour kenn ku nekk mën a liggéey sa liggéey tranquillement parce que dem na ba dañuy envahir plage bi ba presque gaal yi sax bu ñu teeree pour pour mën a débarquer seen jën ñi koy débarquer sax pour pour ñu am fu ñu jaar problème lay doon. parce que problème bi est-ce que du ñoom. place moom mënuñ ko utal ñëpp. li ñu mën rek mooy fi ñu ne fii lii moo fa war a nekk ñi fa war a nekk ñu nekk fa mais boobu foofu feesee ah ñeneen ci seet tamit dañu sàkk pexe mais mënuñoo utal ñëpp place c'est pour cela mooy li ma la wax foog dafa bëri jafe-jafe mais nag quand même da ngay naxante ticket bi nag obligatoire la parce que tamit nit fii soo ko xoolee dañu jël ay balayeur ñu koy bale dañuy jël ay collecteur ñuy collecté bu weer dee dañuy fay courant dañuy fay ndox ñi fi liggéey dañ leen di fay kon ah ala kulli alin képp ku fi liggéey euh, li gën a rafet nga bàyyi fi as tuut ñu ne ñu denc fi xaalis bu dul yéex pour ñu dencal ko ay dono mais nag nañu fexe ba gestion bi li ñu dénk lu fi yàqu ñu mën ko defaraat ñi fi liggéey tamit bu weer dewee ñu fay leen wax dëgg yàlla courant bu weer dewee ñu fay ko ndox bu weer dewee ñu fay ko loolu moom lañ ñu dénk fii te ci loolu la ñu ne ku fi liggéey nag obligatoirement da nga war a fay. lu bon bon am na loo fi war a bàyyi au moins buñ ko dajalee muy mool yi muy mareyeur yi muy micro yi muy képp ku fi yëngatu rek am nga loo fi war a bàyyi mais loolu nekkul lu ñuy def suñu poche mais dafa am ay charge yoo xamante ni dafa diis te dafa tegu ci li ñu dénk te loolu charge yooyu à la kuli al chaque mois mu ngi suñu kaw te il faut ñu régler ko beneen bi mooy dañu dénk ay infrastructure infrastructure yi dañuy yàqu mm-hmm. moteurs yi fi nekk dañuy paan mais bu ñu paanee da nga leen di defaraat parce que bu ci nekk soo demee laboratoire fi ngay wax gars yi ñuy jënd poisson frais tey jii bu ñu defee commande mënoo tey tey jii rek nga am poids bi nga soxla da ngay ramasser tey suba ginaa suba mais am na laboratoire bu fa nekk ay chambre froide moo fa nekk soo jëndee tey denc suba nga denc ginaa suba nga am sa poids nga yóbbu sa sa usine. mu dem message ñi nga xam ne ñoo lay man daal li may message bi may lancé rek mooy ñun ñëpp ñu xam ne quai bi euh, njëriñ askan wi la plus particulièrement bépp doomu mbuur que nga fi yëngatu ci quai bi nga bëñ fi yëngatu patrimoine mbuur la patrimoine Sénégal la ñun nag lu ñu bokk ñun ñëpp ñun ñëpp kenn ku nekk war nga si xalaat lu baax xalaat ci rafet xalaatit nuñ ko mën a yore ci yorin bu rafet ñu pérenniser ko bu ëllëgee ñu ñuy remplacer bu ñu ñëwee au moins ñu xam ne ah ña fi nekkoon day doon nañu góorgóorlu parce que àddina continuité la tey ñoo fi nekk ñun suba dañ fiy jógee ñeneen dañu ñëw bu ñu ñëwee tamit xëy na ñoom it mën nañoo def sax lu gën a baax ñun li ñuy def ñun message bi may lancé rek mooy ñun ñëpp nañu xam ne lii ñu li ñu nekk nii ñun dañ ju dénk du man président mako mom du keneen moko mom ñun ñop ñoko bok alal alalu askan mi la kenn ku nek nga am civisme xamne na ngay def sa keur pour mu bax war nga ko bàyyi xel tamit pour fi mu bax parce que agrément bi nga xamantene bi mom moy agrément Sénégal pour jën yi tukki dem vers l'extérieur dafa xawa nek ci kaw mbagu wa Mbour te Union européenne heure bu ñewé Mbour presque bu inspecter Mbour bu gisé né c'est ok dafay ah. daal di valider agrément bi kon ñun bu ñu sàgganee ba agrément boobu tey ñu ñàkk ko ak tey jii jàpp nañu ne sax jën dafa amatul jën am na mais tey bu téeméeri gaal doon dem géej mais tey ñetti junni gaal mooy dem géej kon téeméeri nit ñooy gaal yooyu li ñu doon séddoo moom la ñetti gaal junni gaal di séddoo tey kon ku nekk tuuti ngay am mais loolu bu amul valeur marchande mais fan la ñu jëm kon affaire bi problème bi si xel la nekk il faut ñu xam ne yi jàlloon démb ak barke démb jàll na. kon tey jii li fi nekk mooy ñun ñu xool réalité yi nga xam ñun ñu ñuy dund ñu jéem ko comparer ak réalité jamono pour ñu avancer kenn ku nekk nga gañ gis sa bopp ñun ñëpp ñu nekk si jàmm. voilà mbokki téléspectateur Côte TV jaajëfal naa leen bu wér a wér di kontaan ci fidélité bi ngeen amoon di ko safoo li nga xam ne moo di la chaîne Côte TV tey ñu ngi woon fii diwaanu marché central ñu woon ci quai de pêche bi daal di xool ñi nga xam ne ñoo di suñu yaay lu ñu yëngu ci jën bi daal di xool lu ñuy yëngoo ci yaranka bi gis nañ ñëpp daal dinañuy rafetlu émission bi bu wér a wér nii rek lañ koy defee saa su nekk waxtu bu ne daan dooleel woon may jaajëfal sama caméraman bu wér a wér laay junior laa ci àndaloon tey moo jàppoon sama combat ay gars yi di leen jox